jërëjëf sëriñ Fallou est-ce que sëriñ Fallou cay sëriñ Fallou sëriñ Fallou am morom mbokki julli di fi teew mbokki taalibe yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli sangub sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi ñoo ngi ndokkeel di sant suñu jàmbari Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaanal Cheikh Modou Mountakha Mbacké mi fi toog jataayam te mate ko sëkk suñu borom eggal ay naalam ak yéeneem te man di ko njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di ko ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall ak njabootu maam Cheikh Fall gépp ñoo ngi leen di nuyu nuyu jullit ak mbokki jullitam di siyaare mboolum yëpp siyaare bi taalib ak mbokki taalibeem jël ci siyaar bi suñu suñu wëllëre bi suñu xarit bi nga xam ne moo tax tey ñu daje fi muy Serigne Khadim Kebe di ko ñaanal ci bii yàlla na ko yàlla may fanu gudd may ko wér ci barke Cheikh Amadou Fadal ba ba mu taxaw at yu bëree baree baree bëri dem ba njaboot gi ak taalibe yi aw ko ci tam nekk tam ànd ko ñoom di siyaare ñun fekk ñëpp nag muy wëlëre yi ak xarit yi ak am di jàmm yépp ñoo ngi leen di nuyu ci bis bu tedd bi bis bu màgg bi muy bis boo xam ne ñuy bàyyi koo daaru ñoo ngi leen di nuyu waaye ku jóge daaru ñëw ci bis bii loolu cosaan la du dellu si ndax bis bi ku ne xam na ne sëñ Xaadim da ciy fàttaliku sëñ Bakki Madina te ku ne xam na ne maam Thierno Ibrahima Faty mooy maamam muy cosaan loo xam ne loolu la sëñ Xaadim delloosi tey ci lii ci diggante daaru ak kër sëñ Mbàkke Madina ndax soxna Aminta Mbàkke mooy waajur soxna Aminta Lo muy waajur sëñ Mbàkke Madina te soxna Aminta ak maam Cerno Faati ñoo bokk lépp ba ko maam di doyloo ci julleem néew boobu amagul fanweeraat muy kilifa gu mag goo xam ne keroog bi bi mu ñëwee dafa fanaan mu yebal sëriñ Mbàkke ne ko nag ko taxawul lenn ci mag ñi di ko ñaxtu naan ko kilifa gu toll ni ci yoonu murit mu koy julloo julliloo gone gi ko xam ne am ay atam demagul fenn ba ko maam Cerno déggee li mu lañ ton doy na sëpp ci sëñ Mbàkke Madina dane julleem néew tinu képp la lañ jublu te sëñ Mbàkke kum timu yàlla yàlla tin ko dem na kon su ngeen bàyyi ko daaru ñëw ci bis bi seen bis la bis bi démb la tey soog a ñëw suñ Xaadim nag ni ko ñëpp waxee rek wax ji day gàtt moom yàlla danoo boole ak sëñ Tuubaa te ànd bi di bëgg yàgg li ñu li ñu gën a neex ci moom mooy wax joo xam ne Sëñ Tuubaa da ko waxoon te ñu bàyyi ko xel ci jëmm ju ne ci loolu la xool ci moom mooy Cheikh Khadim dafa ne nit ñi saa yu si la yàlla ñu fekk ngay nit. waxaat ko nee na nit ñi saa yu ma réeré wut si la yàlla ñu fekk ngay nit. waaye ne bu ñu fekkee ab dof walam kàjj musiba am Sëñ Tuubaa loolu la wax. muy jàngale boo xam ne moom Sëñ Tuubaa mi ko wax ci boppam la ko jëkk a jàngalee place boobu nag ku nekk yaa ngi ci toog muy sëriñ bi ku ni fekk si ku nekk am nga ci cër sëñ xaadim lii sañ bi wax léegi sañ seex Dia ne ko mën nitam la loolu ko yàlla defal kenn du ñëw ci moom jóge fi di mer ku génn ci moom da ngay bég loolu nag jikkooy sëñ Touba turandoom ci la ko doon sëñ Touba kenn mës sa dem ci moom génn dem lu la naqari ku mës a jógee sëñ Touba sa aajo day faju yàlla defal ko tawféex ñu tudd ko Cheikhul Khadim muy woote ci weer wi woote bu yàgg la ñun yàgg nañ koo fekke ñu tudde ko sëñ Touba mi woote ci weer yi nga xam ne ci la Cheikh Khadim feeñ jamono ñu ci tubaa loolu rek day delluwaat cosaan li ma wax léegi day dëgg naa ko mu wax ci benn interview mu wax ne man Touba laa judd ñu tuddee ma sëñ Touba fi laa jàng fi laa def mosuma def lu dul jàng alxuraan ak xasida loolu nag tànneef la loolu ak jagleel la te Cheikh Abdou Khadir waxoon ne jàmbaar amut ku dimbali moom moom dañ koo dimbali ci loolu ndax nit jàng na fi alxuraan doon jàngkat bu mag te ba nga jóge am leneen loo def lu lu dul alxuraan ji ak xasida yi moom nag sëñ Tuubaa loolu la ko dimbalee muy weer woo xam ne ku ciy woote li ci xew dafa bari waaye doy na sëkk ci sëñ tubaa ci la feeñ jamono doy na sëkk ci la sëñ Tuubaa ñibbisi fii ci tubaa te daa waxoon ne ne yàlla na suñu borom maa ngi lay ñaan dawal bis bi gën ci sama bis muy bis bi may jàkkaar la yow muy guddi gi ko suñu mënu sa àndee fii loolu na ku ci yàlla dimbali defal defal la nga woote ci tudd suñ xaadim ñëpp suñ xel war naa dal waaw bi ñu ko ëndee moo dellu si nii mu juróom fan yi muy keroog bi ñu ko indee fii Touba nga xam ne xew-xew yu bari da ci am ndax ñun eh, bari na ki ko jullee ki mu yar moo nu yar muy suñu bàkki buso dañ ko ko tuddee muy suñu maam mu yar ko bari na lu ñu ci xam loo xam ne wax jataay bi moo ko dund maye mu jógee sëñ Bàkke kooku nettali ñu ko boppam leen yi ñu nangu ko ci sëñ Mulaay Buso nga xam ne bis bi moom sëñ Xaadim waa Touba vision bi dañuy ñaan ci doole sëñ Touba seen mbir mi yaatu vision moom ku ne xam na li muy tekki waaye dañoo bëgg mu sori ba àdduna bépp joti waaw ak mbedd mi point comme yéen ñi àndal ñëpp rek ndax ñu dañuy gis lu lu lu xaar seen xaarim def rek ñu ngi koy saan buur dinañ agsi ci ñun te yéen ñii yéen a war di jàllale xabaar yi ndax àdduna dafa jamono dafa dafa yàqu te kuy wax luy jariñ jaam ñi yow rek say wax ñu war a déglu te ci li ngeen ci di xëy ci ngeen di gont kon suñ Tuubaa ngeen di liggéeyal suñ xaadim bis bi ñoo ngi la ci ñaanal yaa ngi koy defal ku am solo di fàttaliku li la ci yàlla defal ak sëñ Touba muy xasida yi ak di fàttali ko jàmbaar joo xam ne kenn la ci yoonu murid muy sëriñ Mbàkke dina ak sëñ Sidi Maxtaar jàmbaar ji nga xam ne sa xarit sa wëlëre te kenn du ko fàtte bërki démb rek damay wax ak uh, waa waa am ñu am ay jafe-jafe mbuur mu yóbbu leen tribunal yàlla dogal mooy ñu yor fii li nii di di di kii njàppalit réseau bi ñu demee yóbbu leen ma yóbbu leen boole leen procureur ñu wax fa wax joo dafa daane bi nee na bi ñu njëkkee am jafe-jafe dana ñëw sëñ Sidi Mokhtar mu ne lu ngeen tudd ñu ne ko ñun ñoo yor waa réseau beeg yooyu mu ne leen tudd leen ko Safinatul Amaan daane la na ngeen tàkk te du ngeen fay loolu la leen sëñ bi wax daane na wër àdduna nag nga xam ne ñu wër na réew mi fan fu ne dem naan fa nee na keroog bi sëñ mu bi sëñ sëñ bi demee sëñ Moustapha toog taawam bu tedd bii nee na bi ñu ko ko waxee dana leen na ngeen xam ne sëñ bi bi muy wax ak yéen ñaari bët la na ñeenti bët la te dama koy faral di wax sëñ Sidi Maxtaar jëmmi sëñ Touba la sëriñ Saliou mii ñu nu dëppee yàgg na ko joxoñ jaam ñi te ñu bari dégguñu ko 2006 bi mu naan na ko ñëpp siyaare ji ko siyaare ji aramal sawara ba war ñoo xam ne am na lu dugg ci moom muy sëñ Touba noppam boobu nga xam ne bi mu nekkee tout tànk yàlla dafa dogal mu am lu ci xewoon ba sëñ bi def ñaanal ko ci mu wér daa mujj sëñ Touba dafa taw taw joo xam ne lu dugg ci nopp yàlla dina ko jëmm joo xam ne nag ku yàlla dimbali nga bëgg ko tawféex la waaye ku yàlla dimbali mu bëgg la nga nelul yàlla suñu borom la yow yàlla moo dogal sëñ bi la bëggal boppam te te moom mi nga xamante ne nii dem na bërki dem tey jii la la gën a teg bët tey la la gën a bëgg tey la la gën a jàpp te di nga ci xam dara loolu suñu xaadim seere na ko ci bis bi Dakar loolu fa lañ fekk waaw keroog dégg nga li mu la wax li li soo ko tàmbaliwaat la nit nag bu fekkee ne yàlla dimbali na la nga am gis-gis mooy damaa wax ak sama sama baay bi fan yii sëñ Baara Sylla ma ne ko cool dafa bari te ñi dafa mel dañoo soxor mu ne soxoruñu ma ne ko lu leen dal nag mu ne ma gëm nañ yàlla ne moo leen bind waaye dogalu yàlla li moo leen neexut dogalu yàlla na ku yàlla li mu neex la lu yàlla def ci nit da lay ne na lu baax nit koo xamante ne ab jullit nga ab taalibe bi Sëñ Tuubaa nga nga gis koo xamante ne mi ngi yëngu ci lu baax nga taxaw temm ci ne du dem ak di wax lu ñaaw loolu ku di ab jullit gëm Sëñ Tuubaa doo ko def te yàlla noppi na ci jaamam ñii li yàlla bind ci yow kenn mënta tee mu nga jot ci li yàlla bind kenn mëntee nga joti kon na la la ma la daan wax démb ak barki kenn la te wóolu naa ko mooy Serigne Fallou moom demut fenn te ba mu des sëñ mi Samba sëñ Tuubaa lu a a nag maa ngi delluwaat di yeesalaat suñu kóllëre di la xamal ne la yàlla xamal ne xamal ma wóor na sëñ Tuubaa fukki fan ak juróom dama ko tëdd waaye sa bis jaral na ma lu nekk ci àdduna sa bis moo ma jaral lu nekk te sama kóllëre it maa ngi koy dénkaat yàlla ak yonent bi gémmi sëñ Tuubaa di ñaan képp ku fi teew nag ci barkeb sëñ sëñ Sidi Mokhtar barkeb ki nga xam ne yàlla da koo mbay yàlla muy sëñ Mbàkke Madina nañu xam ne ku yàlla mbay yàlla la sëñ Mbàkke Madina te boo ko masaan a fekk mu xëy toog dangay ngay defe ne bu jaamuwul yàlla da day dem feneen ab safaan ndax alxuraan di nga xam ne moom la moom dëkkoon ñaari kaamil la mujj di ko jàng ba mujj ñu ko ci mu ne leen maag sëñ Cheikh mii sama mag la ko sëñ bi digaloon te amul jot moo tax ma jàng sama ak sëñ Cheikh Mbàkke genn fan yàlla da ko mbay yàlla sa waxoon naka yàlla toppul dara yow sëñ Mbàkke ma du la bindal bàkk ak ku la yaakaar kooku nag bu ñu demee ba ba ba nga nga koy fàttaliku si mel nii ñëpp war nañ caa defen jot war nañoo xam ne loo ci bëgg yàlla dina ko def ñoo ngi delluwaat di jéggulu kàddu yi di ñaan yàlla mbooleem ngay àndal ak nga xam ne ay wëlër lépp lu la yàlla defal ay tawfiix nga ñëw ko bokk di ñaan ku fi ñëw it yàlla yàlla faj sa aajo ci barkeb sëriñ Fallu di di siyaare baax ñoom sëñ Cheikh Mbaye ak jànkat fekk ñu ngi leen nuyu sëñ sëñ sëñ Cheikh Diaw ñu ngi lay nuyu baax leen siyaar di leen ñaan yàlla leen yàlla yëkkati sëñ Mbàkke Jawaaw yàlla ba li ngeen bëgg ci xasida yi ngeen am ko ci wasalaamaaleykum wa rahmatullah